innovation dans le transport au Sénégal kun ci àndal ñu ne toujours Salam Transport indi nañu leen les bus de dernière génération bus climatisé fi bi ma nga ca boor ba télévision bu lay tax ngay fàttaliku ak di seetaan caméra de surveillance ngir lépp lu la réer bouteille d'eau gratuite boo maree naan naan chaise confortable boo xam ne boo ci xasee toog mën nga nelaw ba saala yaay ndeer ceinture de sécurité da nga koy takk avec des chauffeurs qualifiés et responsables ak Salam Transport saa su ne seen xol day gën di feex ah noo def kii bi booy yee booy bee laa doon waxal doo dara du wat bopp ah kay kay kay booy yi noo xamante ni su ma wut di des bu xool Koungheul Balla Gaye bi ma xool. dama seet waaye waxal rek fii dama seet nu muy demee bon lu jox ma 300 daal dañ siy ko am dafa seet. waaw si bii Papa Dieng baax Papa Dieng.

lu baax wax ma lu baax ma fay li ma yor. lan damay damay deux cent man kii su ñu ko jëndee deux cent. xoolal xoolal boo xam ne jaar kii su ñu ko jëndee deux cent bi loo fay. fukk ak ñaar boo bëggee indi xaalis bi fay génn gaaw rek merci. nañ fi teel ma merci kay amu ci. kii mais yow da nga bëgg lu mu ci fii. waaw dama bëgg xar bëri na amul ma ko yóbbu. yow sama gars yi bu fi nekkoon ñu yóbbu la ko càq càq. Eh, ana xarab bi daa ban ban ma doon koy yab. ah maa ngi jéego. waaw ah, du Souleymane. Eh, attends ci jël ma daanu jëm. merci beaucoup. ati Pape fii sama compagne dina kontaan de. Ah. waaw waaw. merci. wala sama compagne dina kontaan de. jërëjëf. doy na waar boo xam ne lu yàlla xam lu yàlla xam El Hadj ça va El Hadj ça va <laughs> tiitar la sonal waa rek nga mel ba tey waaye El yu doo ñu wuyu ne léegi mu jiib El Hadj ah! wax ak kon yéen ay nit ay nit ñoo toog fii nii. da nga fay gis individu wala. non non jaaxal de. <laughs> xaw ma si woon dara. ay nit a toog de di wax ak yow. lan mooy lan la sax yéen lan mooy. waaw sa kër de lañ doon ñëw ñu gis la nga toog. lan la lu xew. Eh, yow nit kenn ko wax lan la. mi nga daan amee soxla suñu noonu lañu amee soxla si. waaw dëgg kon yéen tey am ngeen soxla nii. lan la wax ñun keroog xam nañ ni def nañ erreur. <laughs> def ngeen erreur. bu baax <laughs> merci beaucoup. bu la neexee gondil moom fi mu toll nii yaa moom. man gondil ma de. yaa ngi gondi kañ. gondi ndax nit ñaa ngi toog fi nga ay nit lañ. tey nga mën a laajte ndax ay nit lay wala ay nit. waaw la lan lu xew. nga jéggal ñu keroog li ñu def baal. Hmm. Mhm. baalu ma ah. ah! <laughs> Elu yoona yaa ngi commencé yeewu mbay. baalu ma leen laa. waa léegi baal ñun ñoo la tooñ ñoo la ñàkk a kees ñoo la saaga ñoo la. def baal solo muy maar ak fi réew mi toll. waaw baal naa léegi lan léegi lan nga sax. yéen a ngi am fan xool bu rafet nga yor. waaw lii nag ah. suñu problème tabaski. ah <laughs> waaw tabaski si la man moo tax. Elage nag yaa ñu gën a xam lan la. ñëw nga kër kër ga ñu wax la nga indi ñu sa tungu ne boo. waaw tey moom jàppale ma rek man kooku dafa ma tiital. dèjà moo ñu ko um. yéen yéen xam nga xam xam lii moom may bool yéen ay baadoo la yéen. tungu ne boobu lu mu fa bàyyi seen buy boobu kay seen léew lu ngeen na seen lu ndaw loolu. ngeen war a waxal mais garaal amul problème. man yéen man yéen samay gaan ngeen. man yàlla def na je vous aime. mënu mhm. ma si dara. yaa ngi dégg mais amul problème seen problème sama problème la. dinaa bàyyi lépp mu comme ni ma ko daan defee noonu laa koy defee. ah ma mbër laa leen indi mbër mbër. xam nga ñoom ñoo yor xaalis fi mu toll nii. waa dëgg du bien. mooy loolu. mais ñoom mooy loolu. mbër laa leen indil te incha rabbi xam ngeen Moussa Ndoye. kii Moussa Ndoye man kii daa may ma koy dégg de. mbër la xam mbër la xam naa ko. nii la am sama gaañ la. waa Elou yow foo xamee Moussa Ndoye. yow man mii rek man mii rek man maa Elou sa waay. man li ma ko tout le monde. Eh, ma incha allah xaar leen ma. dinaa la woo. Hmm. incha allah dina ñëw kër ga ngeen defante ak moom. waaw kay. c' est promis yow de déglu leen sama appel. d' ah. leen sama appel yow caba ngeen teg ko si code. jeex na takk. kon loolu la ah, lu ñu doyee leneen yow tamit. sa ah. kër lañ doon sax waaw nii nii ngeen demee nii. <laughs> waaw nii ngeen demee. dëgg la waaye tamit daf koo benn dëgg la daal li muy dundee ndax tabaski bii ak fii nii nii. salaamaaleykum man de fu ma koy toogee nii. xar bi day nëpp lay daanu. barke yonent bi. non war leen ma buum. xamu ndaw mi. su kër baay da nga lekk xar bu toll nii. su kër baay nga wax de. lii. lii naka lañ ko indilee am am sa jéeg bu ne. waa tos lan nga indi si kër gi nii yow. lii lii mel ni moo moo xar mi gisoo xar mi. nu mu kii ma ñaar fukki junni laa teg si moom. lii lii moo wër ma tàggat lii moom yaa koy. moo wër ma ma takk xanaa. tons dafa waa tons lii doo ko fi takkee lii nga koy takkee. ah tons yow nag tànn tey laay soo ko xam ne tons. yéen ñaar tey seen diggante dëgg la wala. wax naa ko si wax naa ko si yàlla. man nag sama yoon si yéen liggéey. xar bi boo ko laalee tons di nga liggéey si kër gi yow biti nga koy yeewee moo ngi moo war a. man tons man man sama. moo moo moo teel tons man man man mënu ma laa teel dara. tons te constaté ko sama mënu ma laa teel dara. yow ni nga def ba jënd ko ba indi ko. xale yi nan lañ leen boo ko yeewee nga yeew ko ok léegi. waay ay waa dëkk bi ñëw leen. moom mënoo ma indee coono ba nga jëmal xar bi. Midia fi kenn du la dimbali. non non merci beaucoup merci beaucoup bu ma kenn dimbali. non tos xaaral xaaral mu wutal la tos xaaral. xaaral mu wutal la buum. mu buum fii. xaaral eh, eh, tos. tos tos tos kaay bi kaay tos kaay rek yow. tos bi nga ko fi. tos baa na. mbaa du rëcc. du rëcc toos. soo soññi ñu ne la jëm nii xam ni suurul de xam ci may bëgg wala naa la xam xar mi. mi mu jëm. laa ilaaha illallaah lii. man de tey laa jom. boo xam ne rëcc daan na ñus de. tons lii nga fi jënd nag tons lii moom lii moom tons moom lii nga bañoon ko jënd sax ko gën. ñu peese ji. lii. ganaar 2500 yi saako tane di. waaye lii. waaw day def ak tante jooju. man de man de fu mu toll nii man dama ci man moom amatuma ci pexe. ah tante bu fekkee nii de. moral mosuloo dal. Ah. moo tax nga may indi soble bi teel a indi soble. waaw. ak perso soble bi nga indi fii sax moo bëri soble bi saako ak ah. xoolal saako li dem indi fi lii. yow nooy def nii yow. Thioune dugg ci biir yow. ban Thioune laay dugal ci biir. may rafet da ngaa may tàngee xar bi xaw ma foo ko jëlee. yow lu sa problème. li sama problème xam nga ko maa ngi xaar ci biir ñëw. yow kat yow yow kii yow ko rek yow wéetoo ko rek yow yàq na sax suñu concentration. man xadi mi man xadi mi man damay xadi loo ko def xaar ma ci biir xadi yàlla bu guddi am yàlla xëy di bëccëg rek waaye xadi bu dee sa man xadi mi bu dee sa cuuraay xasa yooyu man xoolal damay eh, xoolal eh xoolal mooy la imbécile eh,